ay waay yow jànq nu ma tiitee jànq nu ma tiitee yow jànq yow démb yow daal euh, keroog yaa ngi fàttaliku bi ma ñëwee sa kër ba nga jox ma affiche boobu naan euh, dafa am ku soxla gérante boutique yooyu noonu ba nga jox ma numéro bi yow daal nit ki dama ko woo après mu ne ma on se donne rendez-vous euh, le mercredi à 16h30 VDN Sacré-Cœur 3 si étika bi juste si bi am na benn kër bu fa nekk ah ñu bind foofu destination succès foofu nag yow nit ka daal foofu la ma dugal bi ma demee woo ko mu naan waa léegi duggal ci biir maa ngi ñëw nga xaar nga assister science ma ne ko science de quoi puisque da nga ne da nga soxla gérante boutique léegi du coup lan lay def fii mu ne ma laajteel ku tudd Hervé dina la dalal yaa ngi dégg léegi affaire bi affaire bi déjà xam nga ma waat ko ma ne ko moi je ne comprends pas mu ne ma s'il te plaît ma dem dugal rek après kooku mu ngi dalal sama collègue la maa ngi ñëw léegi bi ma duggee léegi ñu dalal ma soi-disant da ngay def la queue pour entrer dans la salle quoi xam nga léegi ma ne moi je ne comprends plus léegi nag ki ma doon dalal naan ma léegi yow soo duggee affaire bi affaire genre commerce lañ lay expliqué c' est très intéressant affaire ma ne ko non moi j'ai fait ma formation instant bi dama nekk si déposé léegi toogaay kër gi moom laay bañ moo tax comme kii dafa ne gérante boutique la soxla moo tax ma ne xaar ma ñëw fii xam nga mu ne ma non entre après on va t'expliquer xam nga léegi man ku ma laajte foofu mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ku ma laajte mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ñu ne ma affaire bi affaire commerce la daal xam ay da ngay jaay ay garab genre affaire yooyu mais comme moi j'ai fait la délégation médicale mané ah comme loolu opportunité la comme affaire de garab la xam nga comme délégué la def genre xamna dina ci si mën a lii léegi ma topp rang bi saa yi ma toppee rang bi sooy dugg ci biir am ki ngay jot ci buntu bi mën la fay sa téléphone mané ko lan motax may fay sama téléphone puisque dama am rendez-vous légui suma fay fayee sama téléphone euh, nit ki suñu suma wé ma naka la may jotee mu ne ma déedéet léegi kon woo ko léegi bi ma woowee dam bi dam bi ne ma waa sooy dugg da ngay fay sa téléphone ma ne ko ah yow xanaa affaire bi nekkatul entretien ana entretien ak fay téléphone. Hmm? mu ne ma non non fay ko parce que science bi soo koy assister da ngay fay sa téléphone dañuy bañ dérangement yaa ngi dégg léegi ci kanamu nit ki ma def sama téléphone sous silencieux fay ko booy duggaat ci salle bi encore am na kuy surveiller waat ba xam ndax sa téléphone bi fay na ko affaire bu luus yaa ngi dégg ma def na soo duggee ci biir dañoo mel ni comme yow sooy def examen bac ñu lay surveiller noonu lañ lay surveiller tu n'as pas droit à bouger yaa ngi dégg de ñu toog man bi ma duggee takk rek xam nga lu ma fa gis Tienz laa gis téye bu ngal I E N S ñu koy wax Tienz léegi nag simba xam nga mooy lan tànk benn tànk lañ fa ne ñëpp mooy simba soo duggee nag xam nga dañu lay wax da ngay def genre benn naan réveiller les sens de votre les sens qui dorment en vous soit disant da tàccu tàccu ma ne ah man dama xam maa ngi bëgg a jaaxle lii moom du ma ko def. ba bi ma duggee takk gis simba laa xam ne dugg naa si musiba hmm? laa xam ne dugg naa si laa xam ne dugg naa si musiba ma def noonu rek def sama siñ de la croix bu nganda xam ne fii ma dugg moom du foofu yàlla fii moom yàlla new fi yaa ngi dégg bi ma defee noonu signe de la croix bi nag bi ma koy def am na benn grand boo xamante ne mu ponkalee rek ak veste élégance am rek soo ko gisee rek ah day ngay naan maara day taal parce que ba li may wax ak yow man damaa tiit affaire bi démb la woon mais damaa tiit tiit tiit tiit def noonu ma ne ko bismillah ko ba pare ma toog commencé nag di prier sama sappale de ñoom ñu def seen assoirisant prière yooyu ba pare léegi nag suñu pare ñu lay naan waa léegi euh, affaire bi euh, ça parle d'abord de la santé waaw parce que si tu n'as pas la santé mënoo def dara mënoo liggéey mënoo def tout yaa ngi dégg léegi du coup euh, dañ leen di jox ay garab soi-disant sooy door a dugg da nga indi cent soixante mille ñu jox la ay garab garab yooyu nag moom ngay naan garab yooyu da nga koy def comme traitement garab yooyu da nga koy def comme traitement nga koy naan. yaa ngi dégg léegi 160 000 soo ko soo ko joxewee nga indi 4 personnes dañ lay fay si 4 personnes yooyu nga indi te garab yi nag yow yaa koy naan de wala nga jox ko sa kenn waa garab parce que doo ko jaay. xam nga mu ne mu ne ici tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent en s'amusant tu fais des voyages à l'extérieur des va et des viens en moins de un an nga am say millions am say oto yu rafet ak say kër yu rafet en moins de mois en mois de 10 mois par semaine nga am loolu lépp xam nga di la influencer.

maa ngi sant yàlla ak Yeesu Kirista ma yaakaar ak sama yenn jur parce que ñi fa nekk gënu ma leen muus de te ñu fa dugg tam gënu ma leen muus yàlla kay moo ma dimbale ba su turam rek ma génn fa jàmm salaam ba nii may wax yàlla ñu ci te nag étudiants yi sonn nañ ñoom rek la ñu influencé parce que en ce moment xam nañu ñoom dañoo soxla dañoo soxla euh, liggéey dañoo soxla xaalis dañoo bëgg a tekki parce que dëkk dëkk bi dafa métti man ñaata entreprise laa déposé su ma déposé dañ may santage pour vous dire que sénégalais tamit dafa war a jàppale moromu sénégalais mais loolu moo fi jeex léegi moo tax ne ñeneen ñi jóge dëkk ñeneen du jóge seen ay dëkk ñëw di fi teg loo xamante ne bokkul sax ak li yàlla wax parce que loolu mooy indi lii yëpp Sénégal il y a trop de aller rey yu bëri yi ngeen fiy gis yëpp lii la parce que jeune ba si dugg tey seen xaalis di naan seen ay garab esprit bi seen esprit satanique boobu dugg na la léegi soo si xasee ba dugg nag dañ lay laaj sacrifice am na ñoo xamante ne soo demee ba extérieur dañ lay tegal nii genre ah ay lii nu mu tudd sa écran quoi comme écran écran écran lii nu mu tudd euh, sa écran damaa tiit ba tey de <coughs> dañ lay tegal écran tegal la say waa kër yëpp ne la kii lañ bëgg te duñ ko sacrifier force si tu ne fais pas le sacrifice ñu rey la rey yu bëri yi ngeen di gis sëpp léegi lii moo ko indi jeunes yi ñu ngi bëgg a dee secte formation yi bëri na fii sept formation yi bëri na si dëkk bi trop dafa wër dëkk bi Faites les attention, de grâce. On ne peut pas avoir de l'argent sans travailler. Si tu le fais, c'est parce que tu travailles pour le diable.